nuy naa ñëpp fii lay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi yëglekaay gi ne dat wa jàpp nanu ko ca dialogue ga dat wa nga xamante ni moo fa tukkee yëglekaay gi nee ma 2 juin waxtaan gi nga xamante ni moom la ñu waxtaan démb ak bërki démb di altine ak talaata ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ca dialogue ba dat wa nu gis mooy le 2 juin yëglekaay gi ni ma bu boobaa fukk ak juróom ñeent yi nga xamante ni ñoom la ñu tànn di 19 nga xamante ni ñoom la ñu gis ni kat ñoom wala de woon lañ leen ngir rek ñu mën dem ci jong jongante yi di 19 candidats yi ñoom ñooy dem de waaye ñi nga xamante ni ñoom la ñu recalé maanaam ñi nga xamante ñoom la ñu waxoon ni duñu mën a bokk ñu ñàkkal leen a tànn ci tànnin woo xamante jaarul yoon ñoom day dees na xoolaat ana naka la ñuy def ba dugalaat leen ci combat bi bu ko defee ñoom ñu bokk ci ñuy xëccoo amatul xëccoo ay wax mii coo mbaaloo wa nga xamante ni moom la gis de consensus ba yëgle kaay gi nee ma juin la ba tey ca bu ginnaaw 2 avril ndax ku ne xam na ni 2 avril moom sàll ngaari day jeexal ci réew mi mi ba keroog élection di am ki gañe gañe mu soog a bàyyi commission gi nga xamante moom lañ jox lépp lu jëm ci wàllum dadu yi ak commission bi nga xamante moom mooy ministère a ruuse ci waxtaan wi ñu a officialiser li la nga xamante ni bari ci réew askan sunu gaal topp nu ko muy wil mort ga commerçant ya yëgle kaay gi ne ca Sandaga lu ëpp ci ñoom dañoo ubbi jaay de ñoom day dem nañ sax ba yëkkati seen ay kaddu naan faawu rek nag ñu ubbi ndax ñun dañuy liggéey pour la marmite au jour le jour lu nu liggéey tey dunde tey moo ñun bu nu ubbiwul naan wiil mort ak wiir décédé fu nu jëm ñoom day ña naan kenn du nu manipuler gauche à droite deesu ko nangu ci réew mi dem nañ ba naan xoolal fi ne nii weer wi dee na nga war a fay courant war a fay ndox ku nekk di wutloo wuti këram nga naan ville morte ñoom ñu koy woote sax daa am lu ñu wàcc ci seeni kër am ci ay commerçant yoo xam ne la ñu fësal xamle ko mooy ñun dara lañ ci yëgul woon mbir mi daa siiwul woon journée ville morte gi yëgunu ko xamante ne ñoo nekk ci classe d'examen naan journée morte gi suñu ay programme dong moo ciy dellu ginnaaw ñoo ciy tardé benn bés boo xamante ni dee suñu ko gaaw fàtte ci réewum askan suñu gaal mu amee woon ci weeru mars 2021 jamonoy jàmmaar looya takk der yaak ñi nga xamante ne ñoo di woy fipp yu ba ay nit faatu ca ay manifestation yu taroon lool metti woon lool am ci ñoo xamante sax dañ cee ñàkkoon seen ay bakkan dem bàyyi fi vidd bu kenn xamul nees ko a dippee kenn ci ña nga xamante ni ñoo Abdoulaye Bouyo yëkkati na ay kàddu ginnaaw wax gi nga xamante ne moom la ñuy wax naan loi d'amnistie bi ci jëmi boppam des koy dëggal ci réew mi askanu sunu gaal bu ko defee boobaak nigi ni képp kon mas a jàpp ci wàllum manifestation ñëw daal di wàcc nga ñibbi sa biir kër yëgle kaay gi ni ma ñi nga xamante ne nag ñoo ci ñàkk ñu leen jege ñoom mbir mi da leen di diis lool ñoom nag jàpp nañ ni mbir mi lool bu amee kon day mel ni daal kenn mësu see faatu waaye loolu nit mënu koo wanaasu rek noonu daal di koo fàtte loolu mënte ne ñoom day loolu ñuy wax loi d'amnistie ci jëmi boppam des ci àndul d'accorduñ ci ci jëmi boppam moom mi ngi naan am naa lu ma naqari muy ñàkk gi nga xamante ni moom laa ñàkk sama rakk ba noppi weneen naqar ñëwaat muy lan ñi nga xamante ni ñoo defoon jëy yi dañ leen di bàyyi ñu ñibbi ma nga naan bañuñu ko de loi d'amnistie ci jëm boppam bañuñu ko waaye na xool ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen ay bakken beneen waaye bug denc xaritu benn bakkenam bu mu bokk la nekk kooko ma ngay wuy ci turu Samba Camara moom itam mbir mi naa di koo naqari lool ñu faat xaritam bii ci wàllu manifestation yi mu ni ngoon googu duma ko fàtte de yeewoondoog nit ki ànd ak moom ba ngoon ñu daal di koo faat nii mbir mi dañuy naqari lool ndax ñun nag bëgg na noo xam ana kan moo jëf-jëf ji waaye jekki-jekki ni bàyyi nañ lépp ci suuf teg nañ lépp ci suuf lool moom sunu xol du ko mën a nangu lu amnistie bi daal li muy ñeel mooy diggante 2021 ba 2024 lépp lu fi amoon ci wàllu manifestation politique kun ci tëjoon des na la bàyyi nga ñibbi bile loi nag li ko tax a jóg du leen lu dul jàmm am ci réewum askanu sunu gaal rawatina ci ñi nga xamante ni ñoo di way politique yi ñi ci seeni doom loru ni déedéet mbir mi duñ ko mën a digérer de kon daal ñun daal dañuy ñàkk noonu leen lépp la ñuy neenal ñi nekk ci kaso yi ñoom ñoo ciy bénéficié wu ñoom ñi nga xamante ne ñooy génn kii ci ñàkk rakkam di wuju turu Aminata woo na député yi nee na leen lànk leen bu leen ko wote tey bu leen ko wote ëllëg ci ay kàddoom naan lii dinaa ko xeex di ko xeex di ko xeex ba fu sama doole yem ma bàyyi ci coowul amnistie li ñeneen ña nga xamante ni itam ñoom itam mbir mi da leen a naqari mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñàkkoon seen ay matériel ndax ku ne xam ne ne gars yi ci manifestation yi dañ doon taal ak sànni ak tojate moo ne donte ñoom ñi nga xamante ni ñooy député yi ubbi woon nan aw l'enquête jëmale ko ci mbir mi ngir mën a xam ana ñan ñoo jëf jëf yi waaye ba nëgëni furaas daal di kenn xamul bu ci ñii ñàkkee bakken ñii ñàkk ci ay matériel benn waaye ne heure bu duggee yëgsi ci fi nga xamante ni moo di station bi xelam ca xam nga lu muy dema ah. waataam ba nga xamante ni moom la ñu timoon taal ko ba mu ni jëppet di jëfu fa fi tekat li ci doy waar mooy wata bii moom ci jëmi boppam da koo leboon dajalaatu la mu am dem lebi ca banque ba ba mu mat 3 millions bu jënd aw wataam daal di taal na mu mujjee mooy dem aw xaritam daal di koo joxu wata mu di ca dawaat di weerse ki nga xam ni moo ko jox wata bi waaye tam di fay bor ya nga xamante ni moom la leboon ngir jënd wataam banu taaloon ca manifestation ya Aroona Njaay ne saa su dikkee ci station xel ma day dem ci aw wataam mu gën a am lu ko naqari ci àdduna kon nag bu ñuy wax waxi loi d'amnistie yu ni mel nan nu xalaataale ñun ñi nga xamante ne dañoo yàqule ci événement yi fi jaaroon su suñu xool di baax te mënuñu ci dara keneen ko amaat problème te mënu ca dara kooku Abdoulaye Gueye lay wuyoo moom ci jëmi boppam moom itam jaaykatu téléphone la ci aw palaasam la nu dem de dajji ko yëpp yàqate la nga xamante ni moo di aw palaasam te mënu ci dara place am toj veer yi yóbbu mboole seen la fa nekkoon ci ay matériel yu baax ñoom ñi nga xamante ñoo di victime yi nag li ñu fësal xam ko mooy bu ñu leen fàtte ci loi d'amnistie gi te ñoom sax li ñu bëgg mooy nu boole leen nag ci dialogue gi ndax kat ñoom nee ñu wares ndees nee leen gestu waaye waxe loi d'amnistie moom am na ci ñoo xamante ci ñoom moom ànduñu ci ba Sénégal moomee boppam ak nigéen yi loi d'amnistie am na fi amaat fi laa wax jamonoy Senghor 2024 ak li coow li bari bari ci loi d'amnistie bi sàll ngaari ne dina ko yóbbu conseil des ministres àllarba ak jàmm ak salaam gi nu jëm dem na ba naan lii mooy sama position te dama koy assumer devant la nation nag le père de nation wax na jamonoy Mamadou Dia ak Senghor amoon na fi jamonoy Abdou Diouf mu def ko diggante ba aju ci événement yi nga xamante moo xew ca Casamance Abdoulaye Wade ñëw def lu ni mel ci naka noonu ñu daw ca zone des waa zone des Niayes ndax ku ne xam na ne ci wet googu accident ñi dafay bari lool ñoom nag lañu bëggoon am nanu muy aw caserne sapeur pompier seetetetet kii de yóbbu nag ki nga xamante ni moo di aw sëram fafa mbaxana doonee benn yëglekaay gi ne ma moom ci jëmi boppam xam nga ñaata million la ko sër bi escorté ñaata mu ne ma 23 millions kaanu xam nga Guy Marius Sagna kenn dootu ko présenté ci réew mi sunu gaal ñëpp ko ràññee moom Guy Marius Sagna takk na takk na ma ne kamu takk kooka awa Yacine Dieng lay wuyoo ci turu juma jang jaxate yëgle kaay gi ne màkka mu takk moom gi mari saña am na nanu sax li nga xam ni moo di as ndoom yu jigéen yëgle kaay gi ne ma waaye nag kaay ma wax la la ca gën a fës ca xibaar boobu le mooy gi mari saña ci jëmi boppam dimanche gi nu génn ca la tuub doon jullit dugg ci lislaam laataa muy takk ndaw si le moo ndax ndaw see ko tuubloo am déet lu ci am ba des daal mi ngoo si laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall mbokk yi ñu ànd ak Aboubacar Anne ci geneen yaatalu xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma. mbokk yi dal jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañu koy dooree ak dat bi nga xamante ni commission bi ngànkoon dialogue national bi njiitu réew mi woote woon date dañuy tànn le 2 juin war a nekk nag bis bi nga xamante ni moom la ñu war a fal élect euh, maanaam njiitu réew mu bees fii ci biir réewum Sénégal waa commission ba nag ñoom euh, proposition boobee daañu ko yóbbu ci taabalu njiitu réew mi moom président mag Sall ci ci ginnaaw loolu nag moom président Macky joxe ay euh, ndigal ba xam dafay daal di respecté date boobee wala itam dafay proposé beneen date boo xamante ni moom moo ko gënal jox ko waa conseil constitutionnel ñu daal di koy valider ba tey jii rek ci décision boobu noonu nga xamante ni collectif bi nga kon dialogue national bi daal di na koy jël ñoom nag li ñuy sàkkuwaale rek moo di njiiti réew mi daal di topp article 36 alinéa 2 maanaam daal daal di toog ci nguur bi ba nga xamante ni njiitu réew bu bees bu ñuy fal dina ñëw bu ko defee rek mu mën koo jox la nga xamante ni moom moo di lenge yi ñu daal di wax rek ci collectif aar suñu élection bi nga xamante ni eh, ñoom itam woote woon nañu journée ville morte bis boobu nag nga xamante ni moo di talaata bi dañoo digle woon daal activité daal di paralysé waral nag liñ ki ko daal moo di ci biir réew mi jàngalekat yi daal ñoom ñoo ko respecté ndax boo demee école yi daanaka kenn jàngul ci talaata gi waaye itam ña nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci collectivité territoriale yi waaye nag loolu loolu nag gis nañ lu mel ni dem bi ak dikk bi ak ña nga xamante ni ñoom ñooy jaay ak yeneen secteurs yoo xamante ni ñoo ci biir réew mi ñoom moom daadi wuñ koy respecté ca diwaanu Thiès tax loolee la ñu daal di nemmeeku lu mel ni daal euh, njàng meeg njàngale bi daal di nay maanaam paralysé waaye nag yeneen secteurs yi daal boo fa demee rek activité bi dara tënku ko. ñu àddu rek ci grève bi nga xamante ni ñiy liggéey ci wàllum yoon def nañ ko woo mooy syndicat de travailleurs de la justice mooy waa SYTJUST ñoom nag seen grève quarante-huit heures bi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko démb ci altine bi ñu ngi koy woyal ba tey jii nii loolu nag moom moo wane daal fonctionnement justice bi jamono bi daal daa dinay maanaam euh, sooxee lool lool lool lool lool waral nag activités yu bëree bëri yoo xamante ni ñu ngi ko doon nemmeeku ci biir tribunaux yi daal donte nag dakkul ba faw waaye wane nañ ko daal activité yooye daal di nay maanaam xaw a tàgga témbe ci yenn bërëb yoo xamante ni wàllum yoon lañ fay doxal ñu àddu ret ci mbiru ki nga xamante ni moom moo di Ismaïla Madior Fall moom nag ci ab benn télévision boo xamante ni eh, dañ ko ci invité woon ñëwaat na bu baax a baax ci amnistie bi nga xamante ni moom njiit réew mi président Macky Sall dox dina ko jox ndigal tey jii nii ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ministre yi ngir ñu yóbbu ko fële ci assemblée nationale ngir ñu daal di voté loi boo xamante na daal dañuy amnistier la nga xamante ni moo commencé woon euh, mille ca 2021 ba 2024 ñu daal di koy dindi loolu nag moom Ismaïla Madior Fall li mu xam ne rek moo di dossier bii di Adji Sarr Ousmane moom du ci bokk ndax loole moom jàpp na ni moom euh, jëwriñ bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum bitim réew loolee mbir la moo xamante ni euh, lëkkaloowul ak nguur waaye daal mbir la moo xamante ni dafa concerné kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolee itam sax la jàpp ni daal mbiru Mame Mbaye Niang itam mook Ousmane Sonko donga du doon la nga xamante ni moom euh, la ñuy concerné ci liidi ci lii di euh, wàllum amnistie bi ñu àddu ci mbirum euh, député bii Guy Marie Sagna moom itam eh, yéen kaay yi xam ne nañ ni que daal dina tuub dugg ci biir lislaam Guy Marie Sagna nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni moom la ñu jot eh, tuub boobe mu ngi ko daal di def eh, dimanche bi nga xamante ni euh, moom la ñu weesu moom nag tuuram bu bees bi moo di Mouhamed Sagna loolee la taskatu xabaar yi daal di xamale gannaaw nag bi mu ko defee moom moom gi Mari Sagna sax dafa daal di takk ab ñaareel loole la yéene kaay yi daal di xamale te sax ki mu takk ñoom ngi ñee xamal ni que kookee doom la ci kii di kii di Juma Jeng Jaxate di ab styliste bu mag a mag fii ci biir réew mi ñu wax rek ci wàllum mbëkk mi ba tey jii nii euh, marine nationale daal dinay maanaam jàpp daal lu toll ni ki téeméeri nit ak juróom fukk ak ñeent yoo nga xamante ni dañoo naroon daal jël gaal jubali fële nga xamante ni moom moo di euh, nda ndakaaru ngir dem foofee ca Espagne ñoom nag daaj nañ leen di teg loxo waaye itam daal leen di yóbbu fa nga xamante ni moom moo di ca yoon loolu nag ñoo ngi ñuy xam daal itam ña nga xamante ni ñoom ñoo daal di sumb yoon bee dee di di convoyeur yi ñoom saa itam jamono bi ñu ngi ci li nga xamante ni moom moo di loxo yoon ñu wax rek ci ñàkkum ndox bi nga xamante ni moom moo am foofee ci diwaanu Touba ay fani fan bu euh, ndaam nag li mu xam ne rek moo di soixante-quinze pour cent daal euh, ci euh, Touba daal jamono bi mën nañ jàpp ni ñàkkum ndox mi jeex na fa tàkk gannaaw ay fan yoo xamante ni askanu Touba amuñu ndox pour daal di koy jëfandikoo mu nekk rek ay commentaires yoo xamante ni askan wa li ñu daal di xam ne rek moo di Touba dëkk la boo xam ni warul ñàkk ndox loole waral nag ñu ngi yëkkati seen kàddu di dànkaafu ñu nekk ci nguur bi ngir ñu gën a jox Touba ak ak yelleefam ci ñàkkum ndox yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ngir daal di saafara eh, jàngoro bi une bonne fois pour toutes ñu dem rek foofee ca tribunal bu ndakaaru démb nag ab ndaw soo xamante ni boo bu am daanaka ñeent fukki at ak ñaar moo fa andi doomam boo xam ni daanaka toll na ci ñaar fukki at doom ji nag lim ko toppeeret moo di daal di naan waaye itam di def jëf joo xamante ni daal saa su nekk daf daf koy buntu xatal moom mii di yaayam nee na sax doom ji daal na koy jëlal ci xaalis lu toll ci juróom-ñaari million ki suñu koppar te xamul fan la ko dugal loolu nag moo waral moom mii di yaay gi daal di yóbbu ci eh, doom ji ca kanamu yoon ñoom sax bi nga toggee ci kanamu yoon moom mii di eh, yaay ji li mu xam ne rek moo di doom ji daal li mu doon jëfandikoo moo di def ay pari ci wàllu wàllum sport waaye itam di jël xaalisam daal di ko pase pasere moom doom ji sax bàyyiwul woon di menacer woy juróom bu jigéen maanaam maamam bi nga xamante ni ci kër ga la nekkoon lépp nag li ko waral moo di jëfandikoo sunay bar maanaam drogue ci biir kër gi waral nag yaa gi daal sàkku yoon daal di koy tegaat ci yoon waral moom xale bi ñu daal di koy daan ñetti atu kaso yoo xamante ñetti weeru kaso yoo xamante ni daf koy tëdd waaye itam ànd ak amande boo xamante ni ñeenti junni ci suñu koppar lay nekk. ba tey rek ñu wax ci wàllum yoon bi bi yoon nag foofee ca Ndakaaru ab benn famille maanaam mag ak rakk ñoom ñoo daal di ñëw à la mag bi nag di wuyoo Salif S moom moo fa andi rakkam bu jigéen boo xamante ni lim koy toppee moo di dafa nekkoon ci bitim réew waaye itam di ko yónnee alalam ngir mu daal di koy tabaxal kër moom nag bi mu ñibbisee daal li mu seet ret moo di loolee nga xamante ni mu ngi ko doon jox euh, rakkam bu jigéen ngir mu daal di koy tabaxal kër loolee gisu ko benn yoon loolu waral nag mu daal di yóbbu rakk ji ci justice bi ñu taxawee ci kanamu attakat bi nag moom euh, rakk bu jigéen bi rek li mu xam ne rek moo di borom këram daal moom moo daal di sàcc xaalis boobee waral nag moom mënul woon gis fan lay mën a fayee kii di rakkam ca mujj ga nag la nga xamante ni moom moo di parti civile ba daal daal di nañuy sàkku ñu daal di leen di fay li nga xamante ni moom moo di fanweeri million ki suñu ay koppar waral nag attakat bi daal di loolu verdict bi nag mu ngi war a ñëw juróomi fan ci weeru mars bi ñu ñëw ñu wax rek ca la nga xamante ni moom moo di wàllum eh, Sénébar bi nga xamante ni maanaam trafic de drogue nemmeeku nañ ko foofee ci diwaanu Mbour ab groupe boo xamante ni ñoom liñ leen xamee moo di daal di jaay drogue la ñu jàpp ñoom nag ñu ngi jàppee ci sali gannaaw brigade bi nga xamante ni moom mooy brigade bu mbuur moom moo leen di daal di teg loxo ñoom nag bu ñu gisee seen taxawaay moo di ci biir sal yëpp daan nañu fa amoon ay bërëb yoo xamante ni dañ fay jaay li nga xamante ni moom moo di yàmba gannaaw nag buñ ko interpellé ñii di takku der yi ñoo fa dem daal di civilu ke seen xayma liggéey nag moo waral ñun ñu daal di teg loxo juróomi nit ci ñoom ña nga xamante ni ñoom ñoo yoroon lii di marchandise bi maanaam drop jamono bii nii ñoom ñi ñoo ngi ci ay loxo yoon mbokk yi li ma ko doon ci xibaaru tey bi di leen jox di daje suba ak jàmm